voilà mbokk yi nga xam nag yéen ñuy seetaan dañu bàyyi xel ci sunu ay programme ci Tawfekh Production YouTube bi la euh, ngeen mën a cloche bi abonné am notification tey jii ñi ngi fi nga xam te moom moo di foire bi ni ñu ko waxee depuis bi mu commencé ba tey den dicté lépp lu fi am ci euh, euh, activité économique par rapport à ce salon déco maison déco bi nga xamante ni c'est dans le cadre de promouvoir nos produits locaux également l'expertise locale l'expertise nationale y est de qualité tey jii nag ñu nekk ci la donc dernière ligne nekk ci la lecture euh, jeexal ko tey jii euh, en beauté tax nag ñi ngi fi nga xamante moo di euh, xidmatul xaddim Dakar barab bi nga xamante ni ñi ngi taxaw ak jëwriñ ju yaañ macha allah tabaraka taala ngir dëgtal leen produit yi nga xam ne moom la am waaye bu defee présentation pare tamit danañu wax xalaatam ci nu mu gisee salon bi est-ce que mënuñ jàpp ni réussite wala li mu ci doon séntu am na ko ci mbokk internet yi loolu la ñu bëgg a découvrir sëñ bi maa ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar baax a bi tur bi Sidi la. Euh, Siri Gawane ndax mën nga ñu présenter sa sa sa produit. waaw Siri nag benn tailleur la. boo xam ne ne lépp luy décoration rek moom mu ngi ci dox. Euh, bërëb ba mu ngi tudd Xidmatul Xadim. Euh, tey it numéro téléphone baa ngi ci 78 442 44 07. mu ngi nekk fii nii waa Cité Conachap derrière station Ola bi. waaw foofu la bii mooy yoon eh, sa njëkk euh, première fois ngay ñëw ci ay salon ay di exposé wala. waaw bii mooy suñu premier édition. doxantu woon euh, euh, ci waa APDA. gars yi gisal ñu wax dëgg yàlla ak suñu talent bëggal ñu tam wax dëgg yàlla suñu bopp. waaw te en plus Grand Yoff lañ juddoo. yaroo Grand Yoff màggee Grand Yoff. génnuñu fenn nag ci àdduna bi dem nag jàng ji ko. waaw mën naa daal kii la rek bëgg rek. waaw bëgg la tey it maa ngi ciy woo jeunesse bi tamit waaw nag gars yi gën a gëmaat seen bopp te xam na ne àdduna lépp rek jaar-jaar wante affaire bi wax dëgg yàlla na gars yi góorgóorlu tamit am métier dëgg yàlla ñi nga xam ne war nañoo jàngi nañ jàngi ñu war am métier nañ góorgóorlu pour a méti man loolu rek laa leen di conseil. tout à fait li nga sol dafa mel ne yaa ko concevoir sax. non lépp la waaw non bërëb bi am na lépp. waaw am na wax dëgg yàlla ci Xidmatul Xadim service am na kii waa ci Xidmatul Xadim euh, aar am na wax dëgg yàlla waa ci Xidmatul Xadim couture waaw déjà boo xoolee am na lépp lépp lépp lépp. Euh, macha allah léegi nag laaj bu mujj bi euh, laataa ma lay libéré mooy euh, salon bi c'en est fini pour une semaine d' activité économique jeex tàkk ndax li ngeen ci séntu woon ci salon bi am ngeen ko wala déet ndax gis ngeen ne am na lu ci baax am na loo xam ne aussi bu ñu sañoon ñu gën ko yokk. salon bi wax dëgg yàlla liñ ci njëkk wax moo ci mention spéciale wax dëgg yàlla liñ ci njëkk a remarqué loolu la mention spéciale pour waa APDA te it gis nañ taxaw bi ñuy taxaw ci artisan bi. waaw gis ñu fi dara loo xam ne ne métti nañu te gis ñu fi dara loo xam ne ne wax dëgg yàlla jar na tax su beneen yoonte bu ñu woowaatee ñun ñu mën a ñun ñu mën a reculer te it eh, yëg nañ fi su wax dëgg yàlla suñu bopp ci ay connaissance fu nekk depuis loolu nit ñaa ngi ñuy woo depuis nit ñaa ngi fi ñëw di jël ay carte tey wax dëgg yàlla rëccuwuñ ko daal benn yoon daal waaw rëccuwuñ ko benn boo xam tamit mi ngi fi bokk ci ñi nga xam dañuy présenter également produit euh, tey tableau yi a defal ci tableau yi mhm. soxna si ginnaaw mu la nuyoo. ñu ngi nuyu mbokk téléspectateurs yëpp vraiment euh, tableau yi sama frère bi moo koy defar comme ni mu la ko waxee nii rek la ay tableau la sous forme de broderie ak euh, cornière lañ ko defaree am na motif yu nekk. mën nañ la defaral sa mën nañ la defaral personnalisation defaral la lépp Liberté 6 la ñu féetee côté camp pénal bi. Mhm. Euh, ku ñu bëgg woo dafay contact daf ñuy contacter ci 78 442 44 07. am na euh, am na yu bari motif yu bari bu la neex mun nañ la ko defaral par exemple mën nga joxe sa logo entreprise ñu defaral la ko. cadrage la ko ba mu nice ñu livrer la ko sans problème te prix taw féexe na mhm. accessible à tous. marché euh, accessible à tous taw féexe na jëm ci salon bi nga xamante ni c'en est euh, fini pour une semaine d' activité économique ici à la foire internationale de Dakar organisée par l'APDA des agences pour la promotion et le développement de l'artisanat donc nekk li nga xamante tey jii moom la ñu amal euh, fii ci salon bi kon mu jeex mu nekkoon juróom-ñaari fan yoo xamante ni koom-koom ak li ñuy liggéey ci réew bu